waaw taalifa ngoog acca bismillah kon fi nekk nii di leen wax ne 18 safar la ñëpp wax ay tabaskeeg ay ñoom ñëpp ginnaaw bi rombee nag événement bu mag bi dëgg mooy 18 safar Touba di suñu lépp Serigne Touba di suñu lépp Serigne Touba amul morom ku koy weddi nag nag nañu kii mooy moromam Serigne Touba jëfal na askanam aw ko mënu am murit saboo sagoo jullit bi di ko ndamoo Sénégal di ko tiitaroo àdduna di ko féexloo tëddul nelaw nag am ko dafa jaayante ba jot ko lu neex warul lu lu neex lu warul sàkku ko lu métti lu law lu lu war daw ko kon nag ku ne bëgg nga ko ndigalam sàmmoo ko ñun daal amatuñ benn priorité amatuñ benn yitte amatuñ fenn soxla fudul Touba màggal gi nag Touba la màggal gi nag du Dakar du feneen du France ñëpp ngi bàyyeekoo nii gis ngeen rang ñëpp ngi rang pour jëmale Touba Touba tubaab yeeg naar yeeg eh, ñëpp ñi ngi ni am ah, maa si Touba lan wax de. Ila Touba. 18 safar safar. rek lan wax. kese wax de 18 safar. donc ñun ñoo ngi dem Touba. Touba spécial. Baye Massa ngi nag ba euh, docteur Wade ak Ibadou ñoom Petit Sow nga xam ne que Niassène yeeg Murit ak Laayeen ak Xaadir ak. ñëpp ñoom jibi njaago yeeg joolaa yeeg séeréer rek tukkuleur magal 18 safar nga ah. ah ñëpp ni ngi ci xam nga ni kay boobu kay 18 safar lañ jëm de 18 <laughs> safar waaw ah, ana sa bool jël nga sa bee ba pare 18 safar bi kay moom mi nga yàgg na yàgg na yàgg na kon ñun ñoo ngi Touba incha allah te di ñaan yàlla ñu bañ a mas mas a manqué màggalu Touba ndax màggalu Touba jar na bàyyi sa yitte ngir kii li nga nag euh, giléem ba ci ginaar lu ci waay man def fas seef jàng alxuraan jàng gi nag waxuñu nga dem ba ci màggal gi nga dem di joxe ay rendez-vous foofu yooyu amatul caaldi na di joxe ay rendez-vous xam ngeen fi ma leen wax ay nan dëggeen ñi def loolu ala sayyidina Ibrahima Fall cheikhuna xalilullah est-ce que ilal habibullah ilal habibullah ma nga seet si màggal Touba kon Touba jërëjëf est-ce